devenu votre allié naka nga qualifié. Idrissa Seck def na sorti. seetaan naa ko déglu naa ko def naa début ba fin parce que man tamit euh, maanaam position dafa ma intéressé parce que dañoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar te man pour man fañ jëm dañ fa war a dem ak. ak ak ay alliés yu wóor yu taxaw waaw yu gëm ne dañ fa war a dem moo tax képp ku yëngatu ci ñun ci alliés yi rek war a wax wala war a def dara dama koy dama ci dama ci concentré pour am ci lecture bi mu war a am euh, wax na li muy wax loolu gëm-gëmam la gëm-gëmam la lenn daal jàpp naa ko ci mooy ne comme moom d'accord na ne d'accord na ne euh, conseil constitutionnel en définitive moom mooy valider candidature yi loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci beneen bi si topp mooy ay wax na ay professeur Serigne Diop ak yu demee mais 2012 tamit indi woon na fi Carcassonne consulté woon na Serigne Diop conclure noonu ku nekk teru conseil constitutionnel leneen la wax kon jàpp naa ne bii yoon tamit bu fekkee ne daa consulté Serigne Diop tamit mu wax leneen ñu ñu ngi xaar conseil constitutionnel te on que incha allah conseil bu président Macky Sall bëggee ba déposer candidature am conseil constitutionnel dina ko valider parce que euh, il faut pas man je suis juriste je suis magistrat mhm. te euh, man benn doomu aadama mënuma convaincre que ne ci constitution bi président Macky Sall amul 2024 possibilité de un deuxième quinquennat. loolu moom même ñi kay bañ léegi sax koo si révisité tuuti soo passé récent accepté woon na ne loolu moo nekk si constitution bi man personalement également defoon naa benn conférence de presse en 2018 fii à Mbour si mhm. sama buntu euh, permanence ma waxoon ñi may àndal ma ne leen ñu ngi jëm 2020 2019 pour jox président Macky Sall son premier quinquennat en 2024 am na possibilité laajaat beneen te loolu 2018 donc euh, loolu c'est conviction la bu yàgg si man mhm. euh, li muy wax nag Idrissa Seck c'est un Sénégalais euh, li mu wax yépp c'est-à-dire kenn boo boo amoon maanaam benn cercle du doon cercle bu fermé loolu moo ci loolu moo ci moo ci xaw a doy wax daal maanaam du du doon bu fermé